Question. oui uh-huh. série de question je pense que abordé nga sax euh, fi ñu fi ñu war a commencer peut-être mooy prestation de serment bi nga uh-huh. xamante ni moo war a am ni ki ëllëg mais dafa am quelques éclaircissements yu ñu bëggoon parce que nag am na benn taskatu xabaar buy faral di joxe information mais moom daanaka <laughs> bu joxe information on se pose des questions ndax dëgg la wala donc ce serait l'occasion aujourd'hui pour yow nga confirmer ñu wala nga infirmer ñu parce que ci xabaar yi mu joxe nee na que si euh, cérémonie bu ëllëg bi invitation yi dafay concerner les chefs d'État yi tënk CEDEAO ak bu Mauritanie seulement est-ce que loolu loolu ce sera le cas. Euh, ñun euh, au niveau des invitations il faut parce que ñu bëri sax dégg naa leen ñoom ñu ci critiquer mais euh, cérémonie de prestation de serment nguur gi nga xam ne moom mooy génn moo koy organiser en rapport ak ñiy ñëw. parce que kuñ joxagul lenge yi munoo doxal. il faut aussi sénégalais yi ñu nangu quand même ne noonu la réew di doxe maanaam yow munoo nekk président de la république kenn joxagul la lenge yi. ba noppi ngay taxaw di doxal. parce que Bassirou président Bassirou Diomaye Faye munul invité ay chef d' état parce que moom joxaguñ ko amagul passage joxo jébbalaguñ ko lenge yi. donc chef d' état yi fu ñu yem ak moom mooy woo ko félicité ko te ñi ëpp ci ñoom woo nañ ko félicité ko. réew yi nga xam ñooy traité ak Sénégal aussi ñu ëpp ci ñoom woo nañ ko félicité ko mun nañ ci cité yi sénégalais yi di gën a miin mooy les États-Unis avec Anthony Blinken ak euh, Emmanuel Macron nga xam ne woo nañ ko au téléphone waxtaan ak moom ne ko ñun ça c'est des traditions yoo xam ne dafa am entre réew. nga xam dañ lay woo félicité la ne la pare nañ pour liggéey ak yow. loolu am na maintenant nag buñ dee ñëw ci cérémonie bi kooku munoo ñëw ba président Bassirou Diomaye Faye amagul ay ministre amagul ay DG. amagul euh, protocole boo xam si moom la teg et cetera mais nan lay organiser ab cérémonie de prestation bi il a son mot à dire. pour de yaawoo. loolu loolu loolu loolu ni ñu dañ koy wax effectivement. Hmm. du na ci lool la am. mot à dire parce que c'est un commun accord c'est-à-dire waaw effectivement d'un commun accord mais ku ne gis na daañu ci ñëw ci kanam. Euh, waa ji moom hmm, bi ko euh, parce que ku ne xam na ne buñ la falee quand tu es un président élu. Hmm. mais kenn installé gu la jotagoo lenge yi. président bi nga xam si moom mooy la président sortant lépp lu muy def ci diggante boobu ñu la fale lépp lu muy def sur les décisions majeures daf la ci war a laaj sa xalaat daf la war a rendre compte parce que yow lim bu jëlee ay décisions wala mu am ay engagements yu mu jël ci période boobu te déggoowu leen ci mën na am jeexital ci sa ci sa gouvernance kon waxantuma la ak sax ay cérémonie maanaam lépp loo xam ne day am ci réew mi actuellement le président Macky Sall su fekkente ne respecté na lii yoon amul benn décision majeure bu mën a jël te wowul président Bassirou Diomaye fay waxoon na ko nangam day am na lii leen bëgg a def loo ci xalaat donc kon bu ñuy dem tamit ci prestation de serment noonu lay demee. Hmm. mais nag nga wax li nga xalaat te doxaloo ko kay doxal la muy doxal la nga mën rek mooy constater mais ñun dañu gëm ni loolu du li ëpp importance. Hmm. ñun li ñu jàpp mooy président yi am temps daañ ñëw yi amul temps daañ yónnee mais kooku kenn mënuñu ci. Euh, reprocher quoi que ce soit parce que ñun commencé guñ am euh, benn relation de coopération entre ñun ak ñoom parce que jotaguñ lenge yi mhm. kon bu amee lu baax ci président Macky Sall lañ la lay lalu ci ndoddam moom mi koy organiser moom ak ses équipes su amee lu bon aussi ñoom lañ ko mën a imputer mais mun ñu ko imputer le président Bassirou Diomaye Faye maintenant nag le vœu du président Bassirou Diomaye fay daal mooy mhm. que moom buggul euh, mu nekk am mbumbaay mhm. d'ailleurs loolu moo tax y a beaucoup qui ont mis la pression pour que ñu organiser ko stade Ablaye Wade moom mu ne d'accordul en réalité dégg naa ñu bëri di wax c'est le président Bassirou Diomaye Faye moom moo ne d'accordul ci mbumbaay moom en réalité première option sax c'était pour ñu def ko au conseil constitutionnel pour bëgg rek ñu def ko avec sobriété bëggul woon mu am benn mbumbaay maintenant chemin faisant on a di que quand même c'est un peu compliqué suñ bëggee andi des chefs d'État ñu war a àndi également ay kilifa yu bari euh, ak ñi mu war a àndal moom wax dëgg yàlla bu buñ ko bëggee def euh, parce que ñun xam nga ñun coalition XXL lañ. lu mu gàtt gàtt y a 234 partis et quoi et et mouvement et association yu bokk ci euh, ci coalition bi 234 personnes rek boo ko duggoon bëggoon dugal conseil constitutionnel dina compliqué. waxoon tuma la ak les chefs d' état ak journalistes yi war a ñëw couvrir événement bi. ak kilifa yi ñu war a invité parce que ku ci ne xam na ni dafa am réew mi nu mu baaxoo da war a invité communauté yu bëri yi nga xam si dañoo nekk fii Sénégal am fi taxawaay loolu lépp soo ko bëggee boole munoo ko def ci salle bu ndaw bee bu conseil constitutionnel. Mhm. loolu moo tax ñu ni kon nañ ko def ci CICAD bi bu ko defee mu mën a dajal lool mais loolu li ko waral rek mooy bëgg mu yem pour mu bañ a am mbumbaay parce que suñ ko defoon. stade Ablaye Wade naam doon na yombalal lépp parce que daañ mën a andi presque soixante mille personnes mais loolu da doon mel ni dañuy mel ni ñoo xam si dañuy dañuy feetu dañuy mumbaay te ñun dañu jàpp ni responsabilité bu rëy moo nekk ci ndoddu président Bassirou Diomaye fay ak ñi mu àndal parce que réew mi urgence yi dafa bëri li ñuy xaar dafa bëri jafe-jafe yi bëri na te attentes yi dafa bëri yi li ñuy xaar ci président bassir Diomaye Faye noonu tout la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Euh, loolu moo tax moom nee na il veut vraiment montrer au Sénégalais que on veut aller au travail dañu bëgg liggéey parce que ñu xaar parce que actuellement li ñuy xaar chantier bu diis a diis la responsabilité yu rëy rëy la coppite yi sénégalais di xaar dafa bëri yaakaar ji rëy na loolu moo tax vraiment bëggul mu def. bëggul ñu def mais awa euh, moom daf ne président sortant bi décision majeure bu muy jël. daf ci war a euh, euh, déggoo ak le président nouvellement élu alors que jamono ji moom coowal big bi yaakaar naa ku ne dégg na ko signature yu bëri yi nga xamante ni am na ñeel nomination yi est-ce que ci siège boobu noonu euh, nekk na en phase ak li nga xamante ni moom nga décrire léegi. non loolu moom ñëpp gisandoo nañ ko wax dëgg yàlla le président de la république Macky Sall man jàpp naa ni xëy na li ko li muy dund nii lu mu waajalul woon la ba tax. peut-être mooy am comportement bi mu am mais lii mosuma gis benn président bu ko def ci àdduna bi président boo am sa nguur dafa jeex ñu dem élection ñu remplacer la ñu tuddee ko un président élu même bu fekkee joxagoo ko lengee sa diggante yow fi nga war a euh, quitter pouvoir bi ak moom fi ñu ko fale nekk rek une semaine yow semaine boobu nga utiliser ko la nekkoon ay euh, ay décoration ca palais ba yëpp nga génne ko teg ko mel ni ko yore sa kees di jox ko la neex mel ni kuy vider décoration yi jël sab décret di signer ay décret yoo xam ne kenn comprendre lul tax nga koy def di jël ay décision majeure yoo xam ne naam am na yoo xam ne amoon na avant mais moom ba biñ ko dindee buñ koy buñ koy andiwaat moom pendant toute sa gouvernance pour donner un exemple mhm. il a fait de telle sorte que gendarmerie daf ko génne ci biir armée ñëpp gis ko mu dooleel gendarmerie dem ba les effectifs de la gendarmerie ah tolloo avec les effectifs de l'armée de l'armée de terre mais loolu euh, ku ne xam na ni c'était une option du président Macky Sall moom kenn comprendre ko woon di yokk ay effectifs gendarmerie di leen renforcer di leen équiper ñëpp nag gis nañ lim ci bëggoon lim ci bëggoon def na ko même si peut amu ci ndam mooy duma sénégalais taxoon mu koy def jël na sénégalais yëpp dóor ah, génne ay teg ci mbedd mi xeex ñun ci événement yi fi jaar yëpp gis ngeen ni bu ci ne dañ ñoo dóor jaay ñu doole mm-hmm. mais loolu daan na léegi moom delloowaat na yëf yi ci buum ca boy boy ba léegi delloowaat na gendarmerie ci biir armée parce que xam na ne gendarmerie armée la bokk donc loolu man jàpp naa ne option boobu bu fekkonte ne da koy def da ko waroon def bien avant mais wut dem ba dese une semaine di jël décision bu toll noonu alors que moom nguuram jeex na dafa sa nguur bu jeexee am na yoo xam mënutoo ko jël élégance waaw da ngay am élégance sa à dafa man am manque d'élégance xoolal noonu la def ci secteur yëpp yokk ay salaire yoo xam ne pendant trois ans man xam naa secteur yoo xam ne en commençant par la RTS nga xam dañ doon toog di def seeni manifestation takk seen i brassard rouge ah di xeex pour que vraiment euh, ñu defal leen yenn avantages yi defal leen euh, une augmentation de des salaires defu ko néeg ba nga xam ne mi ngi waaj a dem hmm. mu dem yokk leen yokk bu jiggi dayo boo xam sax lañ doon laaj sax lam leen defal ëpp lañ doon laaj mu dem def ko ci réforme CMU bi la même chose lu tax defu ko ci 12 ans yi mu fi nekkee. mu dem def ko ci organ organe de financement yi dem yokkal leen recruter def lu ko neex def ko ci secteur yëpp def ko ci njàng mi instant bii ma yore nii lii ma yore nii xam nga lan la c'est des ordres de service parce que ñu bëri ñu ngi defa ni parce que maa gis ci euh, yenn sénégalais yi ñu jàpp ni loolu nit ñuy wax du dëgg xam man samay wax damay dóot baaraam damay bëgg lu may wax ma génn ay firnde. pour mu leer li nga xam moom la ñuy nekk di def parce que sénégalais dañoo war a xam nekkuñu fi pour ñuy def lu leen neex ñu leen di seetaan lii ma yore ay ordre de service lañ su ko xam luy ordre de service bu ngeen gisee ni ma ko téye xam ne lu bari la lii ay ordre de service lañ yu ñu yu ñu signé ci éducation yoo xam ni moom ministre Cheikh Omar Anne bi mu demee ba xam ne ñoom ñu ngi dem élection ci la ko def ci bopp di compter d'abord parce que suñu xoolee ordre de service yi su fekkente mën naa ko wone dernière minute parce que ñun li ñu wax ci éducation mooy sooy jël ay jàngalekat da ngay def concours ñëpp yem ci parce que ñun jàngale kenn du ko caaxaane secteur stratégique yi comme ay éducation santé waroo jël koo xam ne amul xarañte donc doo tëb tëb rek di jël ku la neex doo ko bu ñu koy jël concours par voie de concours lañ koy jëlee bu ñuy relever le niveau de recrutement des enseignants pour euh, au niveau du bac c'est parce que dañu doon bañ comme bu njëkk la amoon ku ci nekk di def recrutement yaa ma neex toog ca kër ga. di seet koo xam ne sax ba mu bàyyee jàng mat na 15 ans jol ko def ko jàngalekat mais xoolal Cheikh Omar Anne ce qu'il nous a fait euh, il gis nga OS bii ma leen di jox maatam la bii maatam bi ci topp maatam la bi ci topp maatam la bi ci topp maatam la li may wax nii lu leer la parce que munu ko weddi lu mu def la loo xam ne ñun dinañ ci ñëwaat ci lan lañ gëm ne mooy solution yi lii lépp ay jàngalekat yu affecte la dernièrement maatam. toujours mi ngi maatam maatam maatam yii ma leen di jox yëpp lu kenn du lu werante mi ngi nii maatam c' est Cheikh Oumar Anne qui l'a au nom de Macky Sall maatam yëpp ma leen jox ay ordre service la ci xam la moo ordre service yëpp ay ordre de service yoo xam ay nit ñoo ci nekk du benn nit du ñaari nit donc gis nga pété pété c' toujours dans le Podor donc mën naa continuer ci ñaari région ñetti région la leen jël ñoom ñëpp ci zone yoo xam ni ñoom dañoo jàpp ne foofu dañu fa bëggoon a gagné surtout ay Kaffrine ah Euh, euh, yooyu lañ def Fatick yëpp ma leen jox Fatick la yi ci topp Fatick Fatick Kaffrine waa léegi yëpp Kaffrine la waa léegi est-ce que réew dina doxe ni est que réew war na doxe ni et puis à la dernière minute quoi ala nga dem ba si yow yaa ngi dem sa nguur mi ngi dem mhm. nga dem jël ay ordre de service yu mu mel da ngay saboté nguurug jàmbur mhm. xamul tax parce que su fekkente ne yow da nga ne damay dem après après moi c'est le déluge cest dire euh, la politique de la Euh, tête brûlée maanaam man damay dem mais damay yàqate lépp bala maa dem maanaam wala damay tegal ay ndëgg sërëx ki may wutu mhm. ba su ñëwee day am jafe-jafe pour fay ay salaire mhm. bu ñëwee day am jafe-jafe pour gérer son secteur mais loolu du élégance loolu du élégance nguur boo ko yoree ba mu dem ba jeex parce que Macky Sall bi muy dem Abdoulaye Wade defu ko woon nii bi muy dem dañ ko jox nguur goo xam ni ki ko doon gere dafa nangu ne nguuram jeex na mu jox ko ci njekk ci jàmm salaam ni ko yow réew maa ngi noonu doxalal mais yow ngay dem bay dem secteur clé yëpp nga dem def fa ay recrutement massif parce que lii ko gis xam ne du recrutement caaxaan waa waaw léegi nag est-ce que loolu yoon la réew mi président Macky Sall au bout de douze ans ñu jox ko sunu réew muy doxal muy def lu mel nii ci ci ci sunu réew donc loolu du élégance du lu kenn xam sabotage la donc ñun nu jàpp nu sab nu considérons c'est du sabotage maintenant ñu am nañu ci jaaxle maa ngi dalal seen xel yii Macky Sall jël yëpp ak ñi ànd àndal ak ki ministre am. Mhm. Bassirou Diomaye Faye le président Bassirou Diomaye Faye bu ñëwee lépp lay dindi. on va rectifier. on va tout enlever parce que OS jaarun yoon parce que ñi ko signé période benn ko signé waruñu ko signé. amuñu ci pouvoir boo demee ba sa nguur jeex da ngay joxe lenge yi keneen ñëw koo xam ne moom moo yor réew mi xool moom mais di ko tegal loo xam ne yow jàpp nga ne da koy defal parce que boo ko defee moom da nga ko andil ay jafe-jafe yow yaa nga xam nañ fi ba paralysé réew mi pendant de des des des années kenn mënta am da ngay toog ay période yàgg kenn mënta am état civil mhm. kenn mënta am euh, boo demee ci maire yeeg yooyu duñ liggéey pourquoi parce que ñoom dañuy xeex pour ñu appliquer euh, seen convention bi nga xam si ñu ngi koy xeex depuis des années man néew ma waruñ leen ko defal de mais yow boo leen ko waree defal defal leen ko bu yàgg il y a deux ans mais toog ni mënoo ko def mais yow yaa ngi dem nga ni man li ma mënul woon kon président bees bi nañ ko ko ko ko tegal muy ndëgg sa bu ko defee bu yegsee bu ko deful nga wutal ko ay noonu parce que day day yegsi rek léegi ñu wutal ko ay noonu parce que ñooñ ñu ko jox léegi bu ñëwee bëgg a dindi seen i avantage léegi ñooñ danaan kon président bees bi amaluñ njariñ bu ko defee ñu teel ko wutal crise donc saboté nguuru jàmbur donc loolu moo ci dugal Macky Sall ak ñi mu àndal donc loolu quand même c'est inacceptable te Sénégalais ñoo ko war a naqarlu mais j'en profite et c'est par là que j'ai terminé pour dire au directeur la solde que nga tous les émoluments yi nga xam ne dañ ko signé ci tappale ko exécuté parce que ko ci jafe la jëm loolu nag maa ngi ko koy xelal. d'accord lépp luñ fi yokk ci salaire yi ci semaine yu mujj yii nguuru Macky Sall yokk ko fi le directeur de la solde su fekkente ni exécuté na ko def ay chargement euh, sur la base de ces OS tappale ak yi may dégg yooyu bu ñu ko defee ci coow lañ jëm il ne faut pas dans ça parce que ñun néewuñu hmm. mais le président Bassirou Diomaye Faye son objectif c'est de faire de telle sorte que sénégalais bu nekk li nga doon ñaxtu li ci nekk dëgg ñu fekk si la ci defal la ko parce que ñun hmm. gëm nañ ni dañu war a am liggéeykat yu kontaan yu mot yuñ motivé mais nag ku toogagul ci sees bi nga tegal ko ay ndëgg sërëx pour que bu ñëwee xëy na bu day ay jafe-jafe ñu voilà mën ta fay salaire sax mi ngi ciy jafe-jafe wala secteur yëpp jug di grève parce que dañu leen a joxe avantage yu mu nangu mhm. loolu jàpp naa ni du yoon te mhm. tegul ci dëgg man damay jox rek benn kii pour pour daaneel gis nga en 2012 sama mbokk syndicaliste ñu ngi may dégg entre les deux tours président Abdoulaye daf ñu recevoir ñun la CUSEMS fekk boobu ñu ngi grève bu métti grève lu mat ñetti weer su Ablaye wadd nangu la régler suñu problème ñu dem ba mu nekk entre les deux tours Ablaye Wade wooñu tey jii fee ñu ériger les sphères ministérielles mu nangu ñu fa jox cent cinquante hectares ñun la Kisums mais dañoo taxaw ni d'accord parce que dañoo jàpp ni ñun de loolu lañ doon laaj tey ñun munoo dem ba der ba ba sa ba ba xam ne yow sa nguur jeex na tu es à quelques jours du deuxième tour dara leeru lañ ci yaay nga dem taxaw jël mesure yi toll noonu ñun dañu gëm ni am na yoo xam même ñeen ko jox waruñu ko nangu. pourquoi parce que suñ ku la ku lay jox dalay jox fa mu la ko war a joxe waaye ki am xam yaa ñaari at wala ñetti at nii yaa ngi xeex ak moom di laaj ay revendication légitime mu bañal la ko daan ne munu ko waaye léegi lu tax moom mu dem bañ gañe ko mu ne léegi mën na ko. Mm. loolu quand même c'est du sabotage te même ñoom waruñu ko nag d'accord Mame ñu ñëw ci parce que on a vu également ci benn boîte boo xamante ne indemnité qui passe de deux cent cinquante mille à huit cent mille à huit cent cinquante mille quand même c'est énorme tey jii mu jàpp ne c'est pour euh, euh, du baliser la wala du faciliter la tâche à son successeur tey jii et pour euh,